conférence bi nag bii mooy sixième édition depuis huit ans Mohamed Aidara dafa ànd ay jigéen ay yaayam vraiment mu yéene leen lu ne chaque année mu may leen conférence danga leen biyee màgga yóbbu leen fa loolu moo waral fa tey ren mooy sixième édition. xam nga nag jigéen ñoo gën a farlu ci lépp macha allah ni ñu yoree kër rek noonu lépp depuis mu nii. waaye monsieur le maire Ahmed Aïdara fii ci Guédiawaye euh, yan yan manière wala ban yoon ngeen war a jël ngir daal di ko gunge pour mu réussir mission bi nga xamante ne askanu Guédiawaye ñoo ko dégg. waaw Ahmed Mohamed Aïdara loolu du nekk problème ci moom parce que dafa commencé ba yàgg ci loolu lañ ko xam ci loolu la xam moom fa bëgg Guédiawaye di ndamoo Guédiawaye ndax képp ku nekk rek gox bi nga dëkk yaa ngi koy ndamoo léegi donc loolu rek c'est un départ départ la pour Mohamed Aïdara départ la pour waa Guédiawaye te incha allah loolu balaa balaa d bi mu waxoon dégg nga satisfaction totale allah. loolu Canada bi yëpp am na poto lamp yoo xam ne Ahmed Aïdara moo ko fa samp euh, ban mes looy xaaraat ci moom ci wàllum rectification maanaam courant euh, fii ci surtout wàllum insécurité. waaw euh, insécurité bi moom daf ko ndax bi mu yegsee lim daf def mooy taal lamp bu lamp yi tàkkee leer set leneen lu ñu bénéfice la xam naa ne loolu mu ngi ci koor njàngam xale mi intéressé na ko ndax ku wax digital wax njàngam xale yi wax avenir sobe yàlla balaa D27 nañ am li yaakaar moom dinañ ko gis bu sobe yàlla xam nga ne liggéey moom compétence euh, gouvernement la waaye moom li nga xam ne mooy di compétence am fii bi incha allah dañ ci mën ndax na barki démb la jël mairie bi te ba ko moromam jëlee dafa sanctionné moom na ba mu ko jëlee daf liggéey kon loolu dal na xel te sedd na xol lool kon am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax